boo xam ne ñun ñoo ko initié pour ñun ñoo ko initié alors donc donc

gannaaw bu ma santé ñi fi teew ñëpp point de presse bi manko bëgg a tënk ci 8 points peut-être wala 7 points fi may tambalé moy d'abord féliciter président de la république ci taxawayam ci centenaire Seydi El Hadji Malick Sy yàlla na fayal di gërëm di delloo jukel sunu khalif khalif general de Tidiane Serigne baye si Mansour ci taxawayam ci discoursam waye di beral nuyo Serigne mawdo si Dabakh ci ay kàddoom yi mu yëkkati mu don kàddu responsabilité di gërëm kilifa diine yëpp serigne Mountakha mbake yalla nako fi yag baye yalla nako fi yalla baye mu yag fi deuer serigne maye Ñas khalifa diine yëpp wa keur mam limam Laay kilifa diine yëpp ñu ngi leen di gërëm seen taxaway di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla bàyyi leen fi waaye aussi di féliciter encore une fois président de la république ci participation au sommet G7 nga xam ni am na retombée wóor boo xamante presque 600 milliards de dollars pour l'Afrique mu liggéeyal ko continent bi loolu dafay jaadu ñu taxaw si sant ko ci féliciter ko ndax dégg naa ni participation am ci G7 boobu sax am na benn waaye boo ko doon ŋàññi démb waaye moom liñ koy wax mooy na naan classe te xam ne lan yi jeexagul gannaaw loolu ñu ngi remercier les forces de défense et de sécurité yi nga xamante ni ñoom ñoo téye gannaaw yàlla ñoo téye jàmmi réew mi ñu ngi leen di remercier di leen féliciter encore une fois di leen réitérer sunu engagement ci seen gannaaw muy police ak gendarmerie ak armée di ci beral nuyoo général Moussa Fall di ci beral nuyoo commissaire directeur général de la police nationale Bokar Yàgg point de presse bii nag li tax ñu gën ko woote mooy c'est un moment de célébration de la victoire de l'état de droit sur l'anarchie. C'est un moment de célébration de la victoire de l'ordre sur le chaos. Mais c'est un moment de célébration de la vérité sur le mensonge. ndax yéen jamono yëpp am na ñoo xam ne danoo taxaw tëcc pour indi fitna indi pëccëxoo indi insurrection ci Sénégal waaye sénégalais yi comprendre nañ ni njaboot jàmm mooy gën ci moom président de la république mi nga xam ne mooy ndey mbili jël disposition yëpp pour assurer sunu sécurité te li fi xew démb mooy dafa amoon ñu bëggoon jóg taal réew mi waaye ci dañoo dellu gannaaw dañoo sàqi ni waaye jeunes yi ne dañoo jënd glace jënd glace bi nag dégg naa ñu naan dañ leen a ñaan ak kilifa diine yi ñoo leen ñaan ak ma xam nga moom mbër bu daanoo foog mu wax li ko daaneel alibi Quel ñaanu le ñaanu nos dans nos daw comme des lâches c'est ça la vérité kilifa gens, yi wax ñoo ñaan ñoom respecté wuñu kilifa yi saga di kilifa Sénégal respecté wuñu qu'il diine yi respecté wuñu imaam yi te ñëpp xam nañ ni ñi di kilifa yi di wax lu ci kilifa yi donc buñ wax mukk ni kilifa diine yi des ñaan ndax ils kilifa kilifa yi kilifa yi ont seen projet bu antoo kilifa diine dootul am Sénégal ci loolu la liggéey donc buñ des wax des ni kilifa diine yi ñoo ñaan dafa am lu ragal moo ñu des ginnaaw des xam ni bu ñu on va dinañ xam des bési góor de koy le président de la république loolu dañ ko ci ndokkeel ndax la mu waxoon def na ko moom dafa ne woon li xewoon mois de mars dootul xewati Sénégal te élection yi dana am te moom dootu ci waxaat moom bu waxee ren balaa muy wax di déwén waxam bariwul Il wax naan bu jëf ji la waaye bu wax ji bëree du moom li mu leen waxoon moom du fi amati gannaaw ndam loolu nga démocratie ko de droit am ko ci kaw mensonge dégg naa benn confrontation dina am et c'est pas à l'état de déterminer le moment et comment damay wax rek ne ko ñun confrontation taxu ñoo jóg ñun dañuy jóg pour liggéeyal Sénégalais yi ñun suñu yittee suñu yittee du xeex suñu yittee du taal dëkk bi ñun liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ñu ànd ko président de la République Macky Sall waaye nag képp koo xamante ni confrontation nga bëgg ci taal réew mi bilaay di ko am te di fi fekk lu dëgër ndax état bi du yakko ci Macky Sall président de la République damay faral di wax ni président Abdou Diouf ci mom lay tambalé ñun ñëpp d'accord nañ ci né mom togam fi ci Sénégal ligéyam fi ci Sénégal li ci ëpp du won tabax ay infrastructure du won tabax ay defar ay autoroute du won tabax ay immeuble waaye ligéyam ci li ci ëpp mooy li ëpp solo ci am réew mooy defar un état te def na ko dañ ko ci delloo njukkal di ko ci gërëm di ko ci sant ndax Sénégal yëpp amel nañ ko njukkal bàyyi na fi état bu dëgër boo xam ne Ablaye Wade yàqu ko te bu kenn xalaat mukk mu yàqu ci Macky Sall réew mi kenn du ko taal loolu dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp képp koo xam ne nag confrontation nga bëgg di nga ko am bu soobee yàlla ba mu doy sëkk ndax da cee am particulièrement l'agitateur da Yewwi ki mel ni ñebbi ci cin xamul fu muy toog ndax moom xam na li koy xaar et li ci kanam raw li bët xam na li koy xaar moo tax fépp fu mu dégg nii sax mën nañ ko faa rey dina fa dem ndax lii ñëw ci moom xam na ko te loolu gor su nekk ragal na ko te am na dund ne dee ko gën ñun xam il ne vit pas au fond de lui-même dundul moom xam na on compatit en tant que góor sax ñun on compatit xam nañu dundul il a très mal il souffre waaye na ci boole yar ak teggin xam ni mënta yëngal réew il est trop petit pour ça trop on compatit ndax ponkal moo xamante ni da yor ñaari jeeg ñaari ñëpp dem nañ mënatoo suite boote tëj na mënatoo vider loolu nag ngeen baal ma mais dañ koy masow on compatit ñu ay góor lañ moo tax mu agité noonu mel ni ku dof mais on compatit réew mi daal li ma bëgg a wax encore une fois di ko baamtu mooy képp koo xam ne ak koo mën a doon yëngal réew mi mooy sa yitte ci loolu ngay jóg teg nañ ci sa bakkan te lu mu jar dinañ ko def duñ ci teg suñu bakkan yi de ñun suñu bakkan yi duñ ko teg waaye teg nañ ci sa bakkan yow mi bëgg a yëngal réew mi te fu mu yem nag neex te wax naa ni ngir jàmmi sénégalais yi ngir jàmmi sénégalais yi ngir sécurité sénégalais yi dafa am lo xamanteni buñ fa àggee teug ndënd ak semmiñ la wara a doon neex benn naqari benn mbir mi fe ñu ñam donc chers amis comme je l'ai dit tantôt célébrons, célébrons la victoire de l'état de droit sur l'anarchie célébrons la victoire de l'ordre sur le chaos célébrons la victoire de la vérité sur le mensonge et ça, nous le devons au président de la République Macky Sall. Nous le devons à son détermination, à sa détermination. Nous le devons à son engagement pour un Sénégal stable, uni et prospère. C'est le lieu de le féliciter pour ses efforts. beneen wax bi toujours ci ñi fi doon wax demb ñi waaw bu la neexee nga ne këtt geen gi xam nga lâcheté lâcheté weesuwul di yóbbu xale yi ñu leen di rey wala ñuy xeex te yow boo sentiré tu es nga daw te li xew démb du dara mooy ils se sentaient tous menacés mënoon nañoo génn wallaay lazim mënoon ngeen a génn ngeen xool mané bo len gennon dengan di ngeen xamni beusi goro koy bay bo len genné suba bëgg a taal réew mi di ngeen xamni beusi goro koy bay té lo len lu mu len jaral pour ngeen taal réew mi jaral nañu ko ñun pour ñu défar réew mi bu len jaralé téméri bakken pour ngeen taal réew mi ñun jaral nañu junni bakken pour ñu pour ñu défar réew mi li am demb c'est simplement de la lâcheté. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils assument leurs responsabilités pour aller jusqu'au bout de leur logique. Vous yóbbu vous ñu vous di gagné, vous vous vous sentez menacé Vous daw Vous avez biir Vous yi vous Vous avez dem avez ñaanu Vous dama ni Vous lâcheté wessoul nga ne da ngay xass wala fi xam nañ luy xass moy bés sàngam suma démé demee guerre lii dinaa ko def dina duggal sama fetal ci bop fetal bi dina def ni danaa def ni loolu moy xass bu bu xex di am da ngay wax ni yow bés boy xex bo démé ja xex ba ca xare ba li dina ko def amna ku fi xasoon ne le 29 dañ koy ray wala ñu jàpp maanaam loolu da leen di wan rek ni nit ki maanaam lâche la c'est un lâche deretu gor nekkul ci moom man de bu ma leen nee man man Lat Diop su ma leen nee dañ may rey suba wala ñu jàpp ma dinañ ma rey suba wala ñu jàpp ma te li ma ko wax moom ne dëkk bii man lay doon wala yow wallahi la dina am koo xam ne koo xam ne yow loo wax mu dañ loolu dafa doy sëkk ci dafa doy sëkk ci nit ku am xel ak ci xelu ñi ànd ak moom nga xamante ni manipuler la leen toog nañ seen yuuri cultiver nañ haine ci seen xol yi ba gisatuñu déggatuñu ana ki fi waxoon ni Khalifa Sall day nekk candidat par force est-ce que Khalifa nekk na candidat ani ki fi waxoon ni dootuma émarger tribunal du mu ñu émarger ani ki fi waxoon ni élection du am moom moo toog démb ne élection dina am bon xam nga respecté wul nit ñi respecté wul ñi mu àndal année ki fi waxoon bërki démb ne Sénégal am na 700 détenus politiques dina ñëw ci liste bi yéen journalistes yi ki ko waxoon duy dégg ngeen 700 détenus politiques yooyu fen yi neen dafay fen ngeen baal ma ci kàddu gi dafay fen moom Ousmane Sonko laax da ngay fen 700 détenus politiques amul Sénégal ñu ngi xaar liste bi liste bi nga waxoon ni am 700 détenus politiques yaa ko wax ñëpp di dégg 700 détenus politiques amul Sénégal da ngay fen le 29 di nga dee wala di la jàpp da ngay fen di nga félicité ne bàyyi nañ détenu politique yëpp da nga am fàtte da nga am ñoo xam ne fàtte nga leen mooy presque plus d'une dizaine de doomu jàmbur yoo xamante ni mandat de dépôt nañ leen pour acte terroriste te ñu bokk ci yéen waa Yewwi bokk ci yéen waa Pastef ñu mandat de dépôt leen inculpé leen te cour d'assises lañ jëm te yow doo wax ci loolu la moo tax waxoo ci loolu la moo tax waxoo nañ leen bàyyi te liñ nekk yëpp yow yaa leen ci dugal waxoo ko doo ko wax parce que dañ ci ànd de la même façon ko bu ñu rayee militaire Sénégal Casamance doo ci wax parce que dañ ci ànd rebelle nga Sénégal ab sénégalais moo koy jiite koo xam ne respecté woo institution Sénégal président nga saaga sëriñ nga saaga gendarmerie nga saaga police nga saaga procureur nga saaga justice nga saaga militaire faale woo leen nga ne yow sénégalais nga nga ne yow bëgg nga Sénégal nga ne yow tu respectes les institutions de ton pays non je suis désolé réew mi ab sénégalais moo koy jiite bon temps waaye bukki bu sàngoo deru bëy du ko jiite

Ablaye Wade def ko fi te bu sobee yàlla incha allah du yàqoo ci président de la république Macky Sall nit ñi dinañ yaale dinañ dox seen soxla ñi war a dem tribunal dinañ dem tribunal ñi am problème ak Adji Sarr dinañ ko lijjantee ak Adji Sarr Adji Sarr sax moom dégg naa tonton la ko doon woowee waaw moom moo il il paraît que da doon wax ne da doon wax xale bi dee ma woowee tonton. yooyu yëpp ci affaire yi la bokkoon kon nag tonton beneen point bi nga xamante ni bëgg naa ko bëgg naa ko tontu beneen point bi nga xamante ni bëgg naa ko tontu mooy li ñu xam ne li nga xam ni bëgg nañ ko gëmloo Sénégal bëgg na nañ ko gëmloo waa réew mi mooy démocratie amatul Sénégal liberté le Sénégal liberté d'expression au Sénégal c'est ça la vérité liberté d'expression au Sénégal c'est très mal encadré on va vers des dérives on les vit ces dérives là donc vous pouvez kenn wax ni liberté amul Sénégal le 8 mai, nous leen marche place de l'obélisque def seen sitting def manifestation à jour avons la liberté liberté mom day ñak wala mom en fonction de li nga bëgg té li nga bëgg amna na lu ko gën lu ko ëpp lu ñor sénégalais moy or ak stabilité ak protection des biens et des personnes loolu moy frontière liberté ku nekk fi Sénégal waye liberté mom kenn du né amul Sénégal kenn du né démocratie amul ndax parti bu né yaa wax lila neex di dox lila neex élection mu ngi am Sénégal élection lañuy falé élection lañuy ñuy donc fan la manque liberté am fan la manque démocratie am senegal ñuy wax lu leen neex di sëlëm nit ñi di di gént donc liberté ku ne liberté amul Sénégal da ngay wax lu leen neex waxoo dëgg liberté bu mat sëkk am na senegal ndax liberté boobu dafa jiitu président de la République te mënu ko wàññi lu dul yokk ko ndax c'est un démocratique boo xamante ni kenn mënu ko remettre en cause ak koo mën a ne ndax sénégalais yi duñ ko nangu donc bu fi kenn wax waxi liberté nit ñaa ngi dem ñu ngi dikk ñu ngi wax seen xalaat ñu ngi def li leen neex dans le respect des loi et réglement de ce pays képp koo xamante ni jàll nga loi ak règlement ak yooyu dinañ fëgg sa ndundu daal loolu moo am donc waxi liberté ak démocratie nañ ko tege nële te nag débat politique bi fii la mën a et c'est dommage c'est dommage débat politique bi fii la nekk léegi ay liste la ay suppléant la ay parité dougal na góor génne naa jigéen damay dem élection non ni, damaa bëgg a falu damaa bëgg a nekk député way deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat waxi nyak fayda te kenn yóbbeewuñu si lu dul ñi nga xamante ni danoo bëgg a le débat est devenu stérile. Et malheureusement, nous autres, on est obligés de répondre parce que c'est un terrain où il faut les nous. Et nous ne Parce que une partie des Sénégalais, ils sont friands de ces débats purils. Il faut que nous tontes. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont été petit niveau, ils ne sont pas

est hors de question, il sera hors de question de laisser ce pays-là entre les mains de ce monsieur. C'est du loolu yàlla rek moo xam yàlla rek moo xam waaye ñun nous, lu mu laaj lépp lu mu pour lui barrer la la route ne serait-ce que pour une pure et simple raison mooy ni du sénégalais bukki la bu sàngoo deru bëy du nu nangu fii ku dul sénégalais di jël réew ici. Sénégal, un fractionniste, un séparatiste, un rebelle qui ne s'assume pas, d'où codité, on a l'air Et on paiera le prix qu'il faut pour ça. Nous, Sénégal nous sommes gën plus... Nous bëgg dem dañuy ñibbi Sénégal Nous sommes ko jox Sénégal ko nangu donc débat politique Sénégal yéen ñëpp gis ngeen fi mu nekk léegi débat xale la malheureusement foofu lañ ñu woo fa lañ leen di fekk fi mu nekk nii boo doon wax waxee réalisation sax kenn la nangoo déglu parce que foofu c'est un train qui arrive à l'heure et les gens ne s'en occupent pas bu la leen waxee lan lay wax dund gi dund gi dama ne dund gi fépp la seere ci àdduna du Sénégal kese te képp ku la wax ni mën naa def wàññi dund gi fii may wax wàññi ko de façon considérable waxul dëgg ak ku mu mën a doon muy Joe Biden ak di Macron wak du ku mu mën a doon ku leen ko wax ni mën na ko def day wax lu ko neex waaye ku leen wax ni mën naa appuyer wu ci cherté dund gi pour di politique loolu moom ku ne mën na ko ku ne mën na ko donc loolu benn point la boo xam ne bëggoon naa ci wax mooy Sénégal débat politique bi nan ko xolaat ñun ci liggéey lañu nek ñu ngi liggéey Sénégal yëpp xam nañ ñu ngi liggéey motax opposition bëggatul wax ci affaire bilan président de la République Macky Sall wuñu ko sax nak parce que fofu ku fa dugg daanu té nak lool nak moy li ëpp solo ci débat politique ndax la finalité de l'action politique c'est l'homme c'est le citoyen c'est l'être humain lool yëpp ñu ngi koy malheureusement bëgg a lool nañ ci indiwaat suñu xel xol li président de la République def Sénégal té dara mënu ko dindi. liggéey na dé balaa may daaneel sama kàddu mooy nañu nekk ñun ñëpp ay sentinelle de la république wan waxuma ay APR ak Benno Bokk Yaakaar république moo soxla tey Sénégal moo soxla ñu war a taxaw ñun ñëpp tem ngir waa ji ak gaañ yi doon ay bukki sangoo deru béy bañ fi am dara élection législative na ñëpp taxaw bay seen wewu tànk ngir jox président de la république majorité mu continuer liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def Sénégal ndax loolu mooy dëgg ndax leneen bu amee ñi muy arrangé mooy ñi nga xamante ne dañu dañ bëgg a indi mbii coog mballoo ak kaw ak jaxasoo ci réew mi loolu moo leen tax jóg loolu lañ bëgg tonton moom li ko tax a jóg mooy dëkk bi jaxasoo ba dossier tribunal ba réer mom loolu rek moko ñor donc élection yi occasion la ça n'a rien à voir avec ay troisième mandat quatrième mandat élection législative la vous la taxaw élection locale vous pouvez votalé votelee Macky Sall day dem troisième mandat mais Macky Sall mo ëppale vous voix mo ëppale localité APR Benno Bokk Yaakaar est-ce que vous êtes pour autant président dans damay def troisième mandat donc boo taxawee ne bu ñu amee 3e euh, assemblée nationale waxi 3e mandat la waxo deug ndax waxon nga ko fi yow lo wax du deug lo wax du deug un vrai lâche wayé nak moy limay faral di wax rek kéwél du tëb dom jeubut nañu taxaw taxawal Sénégal man Sénégal moma ñor man du sama engagement ci li xew ci réew mi sama responsabilité la personnel réew mi kenn ëppalé wu fi Beaucoup ak ñi nga xamante ni dañuy raas il rase les murs ñi nga été dañoo tekki ci dërë bi président de la république jox ça me ça me permet de faire le lien président de la république jox a ay responsabilités Nous Nous, attaqué attaquer attaqué Nous mi ñu ministres, nous sommes ay directeurs généraux nekk ay directeurs nekk ay députés nekk lu ne ci réew mi mu jox leen lu ne état bi jox leen lu ne ñu war a défendre état bi ñu ni miig noppi sama sama xaritu Benno Bokk Yaakaar yi APR lay waxal ma ne ku dugg mag mooy yëngal dëxin te ñu si bari ci ñun Macky Sall jox la leen kuddu yëngal leen loolu mooy wàllu gor rikk gars yi nanu gore rikk gars yi Macky Sall bum ñu gën a gore ndax moom moomul réew mi dafay liggéeyal réew mi dafay défendre réew mi te xeex boobu buñ ko ci bàyyi bum ci wéet ñun ñoo war a taxaw taxawaay boo xamante ni moom bu ëpp taxawaayam lay doon man mii ci loolu laa ne

parce que c'est un ennemi de la République. C'est un menteur tartuf, anti-républicain. Il faut le combattre par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens. Tous les moyens, je dis bien tous les moyens. Je me répète, tous les moyens. dégg naa démb ñëw na géejawaay me dafa laqatu wa dégg naa démb ñëw na géejawaay me dafa laqatu démb dégg naa ñëw na fii dafa laqatu yor fordam bu ñuul yo dal boy ñew ñëw géejawaay nañ ko yëg ñu ko yëg ñu teeru la ci démocratie lañ nekk dëkku liberté lañ nekk lay teeru ay borom géejawaay waaw comme que nee yaay président président de la république kañ bu ñëw dañ koy teeru booy ñëw nañ ko xam jarul làqatu bi donc mbokk yi wax ji lii rek la woon nañu gën a taxaw réew mi nañu gën a saytu réew mi ndax ñun réew mi rek ñu ñor ak képp ku ñu àndal li fi xew démb mu doon une reculade dañ ko wax sàqi daw comme de lâches détalés comme des lapins loolu moo am démb dégg naa benn waay fii ci géejawaay Macky Sall Macky Sall Macky Sall moo mu wax ne Macky Sall Macky Sall Macky mel ni Macky Sall moom ak Macky Sall la yow Macky Sall bu doon wut raxaskatu douze sax du la jël daan Macky Sall Macky Sall Macky Sall bu doon wut raxas douze sax raxaskatu sax tu n'es pas apte tu compétent pour ça nga naan Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky léegi ils sont désarmés wàllu LGBT bi ñu doon wax xam nañ ni amul du dëgg xam nañ ni du dëgg amatuñu benn moyen amatuñu benn moyen amatuñu xeex amatuñu lu ñu véhiculer du bilan du dara jullit bu mel ni président de la république Macky Sall nga koy jiiñ naan dangay bëgg ay légaliser lu mu mën a doon. xam nga ni loolu waxu waxu waxu ku daanu si saret la encore une fois fi may daanelee sama kàddu mooy waa APR Benno Bokk Yaakaar. ak képp ku bëgg réew mi Macky Sall jox la ay responsabilité nga tekki dara bo waxé ñu def bo téré ñu bayyi dama né rik na nga goré na nga goré na nga goree soo gorewul bu fekkenté ni yow mëno gore mais da ngay bayyi man taxaway bi may taxaw suma ko mënul won am damay bayyi sama dérèt mayu ko man moi man je ne lâche personne yow je ne te lâche pas donc nous nga xamanteni président dañoo ci gouvernement bi nek ci appareil administratif bi nek ci levier yi nga xamanteni jox leen ko pour défendre la cause de la république et la cause de la république aujourd'hui c'est sa stabilité c'est sa stabilité encore une fois pour que les sénégalais aient une vie paisible et harmonieuse entre eux ce soxal doole joju nañ ko def ci sénégalais yi ko def ci dalu rewmi ngi di di encore une fois di remercier euh, di remercier journalistes yi nga xamanteni nañ fi encore une fois